Dormir con una, hasta el balazo, ahí cambiaron. Thank you. tapal ma ngeen ngallu waaw waaw yoon bo moom samba si ka teg ɓisiidun Baye Fall bu Palmarin Mbaye Diop doomu Palmarin loolu noonu di def dugub waaw aca gars yi moo ngi noonu au droit en direct waaw Baye Fall la ma sëriñ de Palmarin waaw mooy noonu Lamb Palmarin mooy dugg noonu di dafay déeba déebam waaw ñoo ngi gis le grand Cheikh Ndiaye di ko conseil di dem noonu waaw waaw Lamb Palmarin aca sama gaay dinaa leen lépp fii lay xewee Lamb Palmarin numéro 2 Acara Jaxé numéro 2 L'entrée mystique de la Jaxé waaw waaw doomu Jaxé baa ngi noonu la Jaxé egg si la Sariga Palmaro. Over a Japan break Raja E. Raja E dapat diksi lagi diksi. Welcome back. Um, Bapak Ji. Bakhtiar and Elizabeth Ji. Nilai kere. Nizamro TV. Allah Fadilas Kabut Palmaro. Allah Fadilas Kabut Palmaro. waaw yëngu moteur mooy dugg si ñun. Mohamed Radiakhé moo war a bëre fii à domicile. Radiakhé fekk si ko à domicile. def entre mystique. elle la ñëw fekk si. ah ma ne leen gars yi. bu ragal lii ragal na lépp. aca aca aca pakala aca gen kera kama dang aca wai Loli. Ah oui, c'est la lutte. fay ñàkk ah waaw waaw beneen doomu Palmarin ngi noonu Babou Kalim a seene jàkkaarloo bu puy sama ma ne leen ko c'est pour la lutte l'autre sport national. L'ombre mystique de Babou Kaline. Power Race! Power Race! ous bëggee am. Wasam lo rap se am. Us o jëme ke combat no me wo se ngi jaxé jahe. Ha ya e sans vegé Ah heda heda té ken rek sawati wa sawati pa bay. Ni heda tamit ya lo tamit te ci am dam na satus. Ya bi ñom mu ma dum dum. Ah ous wa nga no mat meke à domicile. na mu xalam to kenn Est-ce que combat be yaakar ka na yow Non non wayo sa nda atuba yal an jendam to kum dal. Ni yang wadah kin merata kin kuai merata ñom comme ça Kouch équipe ga mo fa moyo bizido dama la tulen no anda rek supporter be quoi bi fi ko mboda machine tomit ah na fa se do ma vite comme bavé ah comme comme dab rek fulo ho bay do rek Vous tan chaque jour rek ah Kouch ale ka fans ko ko wena bege wa fans ko lo fe ah wa de gemi dabi den de i mila ren tamit de ñaanonam tamit wa de yam wam yam wa de ko bizate werewul fof ten refum dal mbara mbaru ñaanal tamit so wax deg njom te refu ke ando naye ten yakarum tamit axa usale kawe sam xotiidu sam xotiidu a jay dana nuun cakam sakanam rek axa aca bonne chance a ah, merci aca njool busanam wolof eh, wa ma lay bëgg wala mo ne le joola le joola bo si wax ah. waaw njool nga bokk ci commando me lo yëg instant yi lu may yëg mbégte bu neex sax waaw parce que sama ñaan yàlla mu may ma ndam waaw mais Ndiol dañoo dégg ci interview nga ne euh, borom jabar du la daan nu mu demee noonu. waaw parce que sa boo déggee loolu man dama am doole gëm sama bopp waaw mais du dara nag. mais maanaam sama doole rek yaa ma gën a xam di ko si def. waaw mais Ndiol nga ñëw fa ma ngeen war a fekk si Pa fii à domicile noo noo noo kiiwee loolu. boo ko déggee mel man turam man maa ko yëkkati. Hmm. parce que sa Ndiol bu sana ku ko dégg rek ñëppay baabeeku si parce que sa Pa Demba bii nii non moo ma jël sax hmm. waaw. mais Ndiol Sama ñu gis ne mbooloo bu takku ngaañ ni mu demee noonu waa Joal yëpp a waa Joal parce que sama sen mbër laa seen doom laa aussi parce que sa lee yëpp samay samay écurie la daal ñëpp billaay wala aw ma seen fay sax alxuraan. Ndiol loo fas yéene bëgg tey. li ma fas yéene bëre fula fayda jom te jom bi sa waxaatuma la damay bëre yow xam nga si dara la ñëw rek kese waaw ñoo loo wax waa Zambro TV waa Zambro TV gi leen yokku rek seen télé bi yal na dem si kanam ay télé télé mais maa ngi gërëm na ku si mel ni sama gaayen bi nekk fële waaw bëgguma tudd tur daal baabu waaw kooku yaa ma gën a xam waaw ma feyam daal waaw Aca ah, bonne chance. waaw merci. Aca ah, ah. hmm. Mal. waaw. wala les tuuti saan ni combat nu meke xaya instant feke. dëgg rek. rek. bilaay. Malo waagino mbaaf meke à domicile. est-ce que Malo ye xaƴa kene yiif. waaw. mais caɗeeni yiif a paax. o ke sam a maaf kan. bilaay wallaay. waaw na fa sene fat fat rek maafim hmm. is naaga sax. Hmm. malingiga ngol euh, fo moyo ɓisiiɗo no maga tunen waaw wen fop nam yambo wen fop nam yambo hmm. ka ndamtam rek mala xaale ka yo sam fo tv sam to jakaw cakanam rek wina njee ndabit nuun quoi nu joma fadna nuun o aca bonne chance ok Thiès Ndangane. sama biir kaay. bëgg naa la. maa ngi lay bëgg a demee. Thiès Ndangane am combat nommé. waaw am na combat waaw. loolu yaa ngi Mbaye Diop Palmarin. waaw waaw Mbaye Diop waaw. loolu fas yéene bëri pour combat bi. donc boo ko jàppee teel a tànn ko rek. waaw xam nga liggéey rek. ndax liggéey daa nii. Thiès Ndangane euh, nga fes Mbaye Diop à domicile. est-ce que ay loolu xel. non à domicile maa ko soxla à domicile. Ah. waaw ah. waaw tëj naa partout. li nga wax foo sama dada sama mun mun sama mun mun laa ko teg. Hmm. waaw noo fas yéene bëri combat bi. jàpp dina daan ko rek. moo ko doon daan ko rek. Hmm. maa ko fu doole maa ko moom. kees ñu gis ne mbooloo bu bëri nga andi nu mu demee noonu. kan si. ne mbooloo bu bëri nga andi. ah ñu da sant yàlla rek man da nga su ma jógee ñëpp ay jóg même laa njëmoon a ma gunge. ok maa ngi sant yàlla maa ngi ñaan yàlla may ma ndam. waaw waaw ah, ah, ana ana us. us mi doon toog si toog us hmm. toog. mi doon toog waaw. Hmm. ba ngay bëggee kees looy wax waa sa motif la. waaw mooy ma lay bëggee rek. waaw dina ñaan si kaw a kaw rek. bilaay walaay. bonne chance merci beaucoup. aca Baye Fall bi waaw siyaar naa la jàmbaar yi wala mooy Mbaye Diop waaw boo boo wax rek na ah. Mbaye Diop mu am combat nommé à domicile yaa kees na ngaan doo fas yéene bëgg combat bi waaw ni ñu daan rek waaw comme ni ñu daan rek ah. mais Mbaye Diop gis na ne à domicile la est-ce que mu ngi loolu xel waaw man lamb à domicile ak feneen yëpp laa yemale mooy ñëw bëri ni mu war a bëree rek waaw mais kees na ci ay secondes lay daan ci ay secondes la lay daan waaw ah.

loo wax waa Zambro TV. waaw waa Zambro TV moom wax dëgg ñoo fi nekkal làmb ñoo fi nekkal làmb wax dëgg ñoo fi nekkal làmb moom. ana Aliou Kout ak Bom. waaw Aliou Kout Aliou Kout mu ngi na leen. Ah. Ah. waaw ba mooy ba mooy fi. waaw ata bonne chance. ah jaajëf. may ziar bu baax a baax. daan euh, noo ko bëgg maalam indi à domicile fii. à noo fas yéene bëgg combat bi. combat ak fit ak ngor. waaw. maanaam it ma ko jafee nga xam ne du ma moromam donc maa ko mun fuuf ni mu toll noonu daa foog ne am doole amul doole naa ko teg lu métti te si biir géew gi fii seetaan na ma naa ko teg lu métti waaw mais mais mais gaañ ma maanaam euh, la nekk de mbaa mbaa yaa ngi bàyyi loolu xëy déggoo ma su bëggee bu bëree simple bu ñu dóor bu paree ñu bëree dóor waaw mais mais gaañ ñu gis ne mbooloo bu bëggee nga andi nu mu demee noonu waa sama jë yëpp jóg waaw mais gis nga jom rek a ko waral am jom am fula am fayda waaw te dama bëgg bëre waaw daa nekk ci man waaw xam nga nit dina dina dina bëgg bëre ndax xaalis wala nit bëgg bëre ay magam doon mbër mais man dafa jur rek doon damaa a rek bëgg ko xam nga fan laa ko bëggee loolu moo a instant bi ñëpp ma gërëm instant bi ñëpp a topp sama ginnaaw a tax te il faut il faut ma bégal leen kii dama koy daan waaw. daal loo wax a Zambro TV a loo wax a Zambro TV. waa Zambro TV a di leen ziar rek xam nga rek waaw ñoom moom yàgg nañ ci affaire bi jàpp nañ ci trop waaw fu lamb am dañuy dem la jëm si kanam rek waaw. aja bonne chance waaw mu ngi moytu rek. Ah. discipline respect. Ah. waaw aja bonne chance. waaw jaajëf waay Zambro. wala ma leen ko joxe. loo si wax rek. Hmm. waaw waaw Serigne Ndiaye nga ko bëgg fii à domicile yi. ah yaa ngi ko Ousse. loo fas yéene bëgg combat bi. waaw tey rek xam lu ma andi xam lu nekk sama ginnaaw. def tey fulaak fayda rek laa fas yéene andi tey. waaw mais Serigne ñu gis da nga ñëw ba Koldo Yengalu fekk si Ousse. waaw est-ce que mu ngi loolu xel. non loolu bàyyi ma ko xel. Hmm. waaw sóoraale wu ma ko sax. Hmm. waaw mu ngi mel ni man rek. si àll bi lañ daje comme ni ma la ko waxee woon bàyyi ma loo sax xel. billaay walaay. moom rek ci ay seconde daan. non loolu mënut a nekk. Ah. waaw loolu moom mënul nekk moom. waaw loolu moom bu ko waxee moom boo si wàllu boppam tey jii nii. ci géew bi buñ segee dina loolu mënut a nekk ndax moom am na si dara. Ah. mais sëñ Ndiaye ñu gis ne waa Jifeer yëpp mbab ñoo ñëw jóg mu demee noonu. waaw parce que nekk xale di góorgóorlu tout le di ñëw ñu koy teg bët looloo waral ñun tout le rek bu ñu rek ñoom ñëpp dañuy jóg parce que dañoo gis ñun fu laak ak loo xamante ne nii ñun ñoo ko dund ak ñoom rek looloo waral ñëpp jóg billaay walaay aha sëñ Ndiaye loo wax waa Zambro TV Zambro TV xanaa di sant di gërëm di leen ñaanal rek sa kaw sa kanam billaahi aja bonne chance aja Zambro aja éboy eh, bëgg naa la maa lay dolli bëgg baay éboy eh, nga a bëgg Babou Kalim à domicile nga fas yéene bëgg combat bi waaw fas yéene bëggal samay et puis ñu gis ne euh, Babou Kaling biir Palmarin Ngal nga ko fekk si est-ce que yaakaar ne combat bi dina yomb. day yomb. waaw moom na dëggal boppam comme ni ma la waxoon rek. waaw bu dëggalee boppam rek combat bi du yàgg. waaw mais moom nee ci ay secondes lay daan. moom loolu la wax. waaw na ko jëfee waaw mais bu ñu gis ne waa Jif yëpp dañoo mab ànd mu demee noonu. waaw xam nga rek dafa di nit nit ñi quoi. waaw neex doomu aadama di def lu leer itam. waaw moo tax waaw. bu yow looy wax fas fas yële bi ñu lay di leen ñaanal jàmm rek ak yokkute. waaw di leen ñaanal yàlla ñu ñaanal yàlla may ñu ndam si kaw Babou Kalim. waaw loolu loo wax waa sa mbokk yi. waaw di kontaan si yow rek. di la ñaanal yàlla jàmm ak gudd fan. waaw comme dab rek. télé dem si kaw si kanam. dinaa walaay Fatia bonne chance. waaw waaw bëgg naa la. waaw léegi bëgg naa ziar. dafay xaar yoo andi tey. ah waaw indi ndam rek. ndam euh, nag ñoom boo xool ba ngalu fekk si Ameth à domicile est-ce que xaay mu ngi bàyyi loolu xel. loolu garaaw loolu jarul bàyyi xel sax. Ah. xale laa ndaw di liggéey te li ma liggéey waxoon naa la tey laa koy confirme. Hmm. bilaay walaay mais moom nee ci ay seconde la lay daal. ah waaw baax na ban yegg si loolu. ban hmm. yegg si loolu nit ñi nga xam seen i ba tey xool tey man la tey man la si moom. noo fas yéene bëri samay mbokk rek fas yéene koo daan jël dem ñibbi waa Jifeer bilaay walaay. mais Bébé Khaye gis ne waa Jifeer yëpp dañoo màbb ñëw ànd ak yow nu mu demee noonu. waaw noonu la noonu suñuy nit lañ yu baax ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne fair play rek seen mbër am ndam ñu àndandoo 100 pour cent ci fair ñu dem ñibbiwaat rek benn problème. waaw di leen wax waa Zambro TV. waaw waa rek si laa dëkk billaahi samay samay nit leen quoi. di leen sant di leen gërëm wax ne yal na doon ay télé télé billaahi si internet doon ay télé gis na li ngeen def si lamb leen sant di leen gërëm déplacement a domicile nga ah, ko fa épuisé xaa yaa instant bi waaw instant bi xanaa kontaan rek waaw to leyaame i pare na fop waaw képp ko andoona yee i yaakaaraan ka andoona yee jee i ndam i a quoi i Babou Kalim o waag o a meke à domicile a ɓisiidoxan le no maafel ke à domicile vraiment a refa ka andoona yee a ɗoma mais nak ani gérer i préparer a fop i Babou Kalim o koy layan ay seconde ke na maaf waaw fo men une men hmm. i mbuuɗo ndiike hmm. télé nana waahin inchallah waaw waam kene i ngiga mboolo fo mayo ɓisido waam re ngallu o leŋ yoke fop a ngar a njaaɓiɗong nama retu nen waaw nama retu xeƴa baabu kali nga refo ɓiy den a refo ndeɓ den a refo ndokor den a refo ndaan den i xeƴa kana somo fo ñowo mosule ñoowa palmarin i ken taxu ɓodolo fop a inoxay a ndamtida baabu kalim i ken a ref baabu kalim xale ka fasicole ko wena mbegeyam fasicole pe jemi ndafid den to leya den me den moƴo ndamta in rek i inoy na njanga men i njom i maya i de ndam tayna ñaanana in i ka soom i njegumen Ninjee lakas kay maaf leen jom bari ñapa pour be gala den rek refe lakas den to boy no leke defina muy ndef nay ndeyante ya rek billahi wallahi i pap galen xale ka sam moti we sam bro comme que leyanum tout le temps waaw rafet luy wa o foni we nommé na trois meilleurs euh, site internet lu simple wa dega ne yàlla euh, ine encourage am to leme calel ke a yoka mbame mbati gorgorlu yo kena gara oxe gara inshallah fop na faka i encourage a nuno a décourager a nun nana ana dom kon nag góorgóorlu yoo rek foog nga na faa incha allah Zambro i mbégé anu na pas à pas. et de bonne chance. merci beaucoup Zambro. Zambro wala ella. mu jàngoon na rek a faa. non non tu ma ñam double moto mais. Eh, mais ci mondial double moteur fe waaw waaw yow eh. waaw double moteur wala maaf gi meka à domicile maa gis do xamne waaw confiance rek ndam rek waaw ndam fon ko sidu man billahi wallahi tallahi aha euh do xay ala no musa nget eh, ma fa no jafi len aha ma ba no jafi len son gen 2 0 aha double moteur engi gapal mo ngalu o len yow o len yokke ko mba mba mba anjabi don billahi wallahi tallahi ten quoi bo ko mbake kangen di mama gi mes border ko jeni ndaɓi ten haƴama den garo de quoi so leya den ndemede ɓaten ndama paax bilay wallay yaam mete lerumana ten quoi axa dulu motam euh, na fasanemo ret combat fe est ce que ka combat fe ana ñof waaw combat bi ni jom ful la fa fayda wute laaj ah, euh, na rek waaw ametale ka we Zambro TV Zambro TV mini ke leega nun ka mbirna rek ka lel ke mosa ine suivre a nun a tout le temps ke dana nun tamit télé fe ret boirim télé télé bilaay wallaay tallaay chance yajof waay waaw aca wabdam mbege o final wa mbeg na mbabat fe palma nge ngalu xa ya instant neke no gidma wa pa neke keke mbeg te refu quoi parce que we aji ne samba yamba neke a cunga neke njangi njom ne quoi to xeɗaxo xeɗaxo neke te ciyaam njangi njom ne naan est ce que anda ye wagona maaf it to i e wagu maafit andin um nda an wa ciyaam ndam toogum quoi yaam ga ye nda fas yéene maafit comme maafe comme baafe no jangin tempo tempo rek i fas yéene maaf rek a felanga xo i de naan xale ka fas ke to winan pege mi nan ngayanaw fas ke a gidma den rek ndafit e den quoi parce que a sonna son tooges i parce que o kiina xaye koy a ngeen wa ngeeno ten quoi ka mbiye na xaye quoi ka mbiya ku refna ley ku refna tamit i fas yéene a rafda den quoi xaye Zane le xale kawe Zambro TV we i bege a den e gidma den leya de Zambro TV ca kaw ca kanam i we ngidma wo tamit quoi parce que ke fiya calelonga mosa quoi i ngeda ne i ngedanama wo o jof i mbaami quoi i ta geek nena mbeta tuga waja i geej giya oxey waja de ah, ah, ah. est ce que na gang sax non na gang na gang sax na gang ya kaga tinum de non na gang oxey waja de oxey waja wene entraînement ke kañoy waja i geedi aca bonne chance i merci waay waaw waaw waaw bege o waaw bo bege o waaw way fa i njaga ma ndigane ɓisidong xan lene waaw waaw waaw sama gaay filar wa meke no mbogon ne xaya instant leegi instant leegi moom content waaw so bugo jang naak rek ɓisid combat bi final bi. waaw ah nga gën a solo. waaw kontaan nga gën a solo rek. nga plaqué leen. adversaire bi voilà ay ci ay seconde dana dana maas gàtt. waaw soo baax rek. mais wax fa laay fa laay fan bële daa xaaru baax quoi. mooy nañ demee wax na ko bëri. mooy loolu waaw. booy boo xale gaa yi Zambro TV. Zambro TV ala ca ca kaw ca kanam rek. waaw ñu ñaanal naa dem ca def ba ca yokku kenn waaw. kon nag garaat la nga dem quoi. ñu yokku kenn ta bonne chance. waaw merci. Gandia Fama. bëgg naa la. nan lay ziar. Gandia Fama wax dëgg maa fi nga bëgg ni comme maa noo bëggee. ah yaa instant bëggee. ah nani. Ousmane Sonko ah. Ah. Ah. waaw Moussa Mbadia waaw wagana mbaaf meke de combat no meke haya instant meke a bi o wala ene gal nanem seede ko <laughs> demo seede non non day ke instant yi instant yi sama mo ngi tàng instant yi waaw mais waajina ci ay sugol la lay daan waaw baax na dañ ñaan ma nga yàlla rek mais man daf su kam waaw ko andi tey tey waa sama yëpp a jóg ànd ak yow mu demee noonu ah yàlla ko def ci man rek waaw mais wax waa sama maa ngi ñaanal bu bari waaw bonne chance bonne chance que eh, kii dañ koy dembale tey parce que Mame Sara Fall jël tey dañ koy dembale parce que Mame Sara Fall mais parce que ko andi tey eh man li may indi xam naa allah bu neexee yàlla suñu borom waaye tey dañuy am kii dañ koy dembate kii xam naa lu ma wallaay daalaay kii tey. waa bi moo bëri waa bi moo bëri. waa bi moo bëri. Fadio Paul Demba wala Mass Ndiaye waaye bilaay Mass Ndiaye boo si wax baax ah. waaw waaw bëgg nañ la waaye ñoo la ziar góor mais gis nañ ne maa di yooyu moo la andi tey de waaye gis nga noonu la demee sama doom yaay la dama koy sant bilaay aw ma fayam ah. war na yàlla kii borom baax la bilaay walaay talaay bilaay Paul Demba njool nee na boo dëgalee sa daan bu taxawee dëgal boppam combat bi du def une minute ah. yaa yaa bëgg combat bi combat bi non gars yi ñoo ma woo rek na ma ndax bëgg nga seen combat rek man ma bëre ak moom te sama góor ragal ko. waaw ñu gisee waa ji fee yëppam ba mu ànd ak yow nu mu demee noonu. billaay walaay jibeer ndaayaan aw ma seen fay misira ñombaanu Fatick billaay walaay su ma limee damay juum yow na yàlla aw ma seen fay waa Samba Dia maa ngi di bëgg baax waa Pamare billaay aw ma seen fay képp koo xam ne fan si paa nga di bëgg baax rek bàyyi sa yite ngir man maa ngi lay sant waaw day wax Sambro TV waaye Sambro TV maa leen di bëgg billahi wallahi jàmm rek ngeen jàmm boo leen toll bu leen xalaat dara kanam rek di jëm doo leen dellu ginnaaw moom war na yàlla billahi te bonne chance ak merci waay combat lamb ji yëpp ñu ngi nii toog leen ñi si ginnaaw paas dagg seen ticket ñëw pour seetaan ñeen taxaw seen kanam di arrière dañuy defar da ngeen di arrière rek ñu defar arrière leen ñu defar làmb ji arrière leen defar làmb ji. bëgg leen ama dëgg dañoo bëgg a ñibbi ah, waaw bëgg nañ deux minutes Serigne ko see Serigne jël na tànk bi us bañ na éé Serigne Ndiaye us Serigne Ndiaye us ko é é Serigne Serigne daan ko Serigne daan na us Serigne daan waaw waaw Ndiaye Ameth Dior double moteur moo nekk ci préparation ni Ameth double moteur dana préparé waa nekk waaw waaw Acaga tout droit cinquième combat de la soirée diggante Ameth double moteur ak Bébé Haye waaw waaw Abid mu ngi wax ak ñoom Abid sëfle na Ahmed moo féete à gauche Bébé Khaye moo féete à droite double moteur Bébé Khaye waaw waaw double moteur Bébé Khaye di leen di fàttali ne Ahmed à domicile la nekk waaw waaw eh Ahmed na ko waaw waaw double moteur Bébé Khaye promoteur bébé xaay double moteur bébé xaay hey Ameth jël na ko Ameth jël na ko Ameth jël na ko waaj mbot na ko hey hey Ameth lu mu wax Ameth wetu na ko Ameth wetu na ko Ameth wetu na ko Ameth wetu na ko hey hey mëbëtu na ko waaw waaw cinq quatrième cinquième combat de la soirée double moteur ak bébé xaay bébé xaay moo ñu woon gannaaw eh Ahmed jël na ko waaw waaw double moteur ak bébé xaay waaw waaw double moteur bébé xaay eh Ahmed jël na ko. Amet am na Amet am na ngemb waaw double moteur bébé xaay double moteur bébé xaay double moteur wetu na double moteur wetu na ko double moteur wetu na ko eh waa ji mot na ko Ahmed Bagna Ahmed Bagna waaw waaw waaw waaw waat na Ameth Double Moteur Bébé Khaye cinquième combat fii ci Palmarin Gallo ay combat nommé la woon Ameth Bébé Khaye Ameth Bébé Khaye

bébé xaay jël na bi wax na ko na na na ko na ko na ko na ko na tout sixième combat de la soirée Guess Ndangane moo féete à gauche Mbaye Diop Baye Fall moo féete à droite moo yëngu mu lu weex li waaw waaw Mbaye Diop Baye Fall Guess Ndangane waaw ay baaxam waaw waaw sixième de la soirée. Boy Diop kees na kon Boy Diop Baye Fall kees na kon dañu waaw waaw Mbaye Diop 15 Ndangane Mbaye Diop Baye Fall 15 Ndangane 15 koy naax Mbaye bañ na Mbaye Diop 15 Ndangane 15 naax na ko bay koog na ko hey bay Diop gees na ngaan gees nax bay baña gees am na ngemb am na ngemb am na Général Gas Ndangane Mbaye Diop Kees Ndangane Mbaye Diop Kees Ndangane Diop Gass Ndangane

ko am na ngëm match nul match nul waaw waaw abi sifle waat na diggante Pa Demba Djiffé ak Ndiol bu Sana waaw waaw ba dem ba ci waaw waaw ba dem ba ji fekk njool bu san ba dem ba ji fekk njool bu san veulent que li ngay def nii wóor na waa dem ba lii lan la nii waa dem ba lii lan la nii njool baa dem ba njool baa dem ba njool laa ginnaawam waa Zambro TV namtaw ma tan bete may eh, wa abdou combat be final fe final fe namaga tulen wa final fe njol njol bu sana ten jehu victoire fe iten cootum victoire a jangin moom jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf